wala barke sëriñ bi ñu ñew ak yéen ci seen nafilé bis bi guddi ñaar fukkel ak ben guddi ñaar fukkel ak ben ku ci julli ñent raka raka bu ci nek dina faatiha da ngay tari khul wallahu ahad ñaar fukk yoon guddi ñaar fukkel gi ak ben ku ci julli ñent raka raka bu ci nek dina faatiha da ngay tari khul wallahu ahad ñaar fukk yoon ku ko def melna na ni ku dun aduna ak li ci biram dundale ko ci yoon yalla mel na ni it euh, ku jàng tawreet ak injiil ak sabuur ak furxaan te buy génn àdduna dana mel ni bis ba mu ba mu ba mu ba mu ganee àdduna ci ñàkki bakkaar loolu mooy seen naafile bis bi jër ngeen jëf